voilà Madou Awa man euh, damay intervenir euh, def une petite genèse pour xam ñu mën a comprendre exactement le réel problème parce que depuis bu ñu jëlee indépendance dafa amoon les institutions de Bretton Woods yi mhm. doon définir la politique africaine presque ñu dem dem dem ba état africain yi surtout Sénégal amoon ay problème emploi masse salariale bi attanatuñ ko ba def favoriser les départs volontaires mhm. politique d'ajustement structurel euh, politique d'ajustement structurel structurel boobu noonu aboutir à un document stratégique de réduction de la pauvreté le DRSP 1 ak le DRSP 2 yooyu nekk aussi yoo xamante ne c'est des facteurs qui ne tenaient pas compte de l'employabilité de la jeunesse et il y avait autant de diplômés yoo xamante dañu doon am te employabilité bi état du ñi ci ñu fi nekkoon amuñoo leen moyens financiers pour mën a pour mën koo résorber. Mm-hmm. loolu di dem di dem di dem boo président Macky Sall yàlla jox ko lé nga Sénégal mu xam ne DRSP euh, DRSP de bi doxul bi nga xam ne dañ ko créé en 19 en 2002 ba doxul parce que problème socio-économique yi ak problème employabilité bi tëri teniruñ ci compte ci lañ def le chemin du véritable changement le yoonu yokkute yoonu yokkute boobu soldé avec un PSE bi nga xam ne dafa ñëw pour renforcer mm-hmm. tenir en compte les actes stratégiques de développement tenir en le capital humain te encore la bonne gouvernance et la transparence loolu nag suñ ci ñëwee dañuy jël les les paramètres exogènes yi nga xam ne ñoo impacté l'économie nationale le monde a subi la géopolitique mondiale a subi des crises multiformes yoo xamante ne aussi bien qu'aux États-Unis qu'en Afrique qu'en qu'en Europe il y des pertes d'emplois énormes soo gisee immigration bu ñuy wax feeñu ci pays européens yi dañu am ay conventions yoo xamante ne ils ont brisé les frontières mu am ay va et yoo xamante ne duñ tenir compte ci ñi nga xam ne dañuy am ay flux. Mhm. looloo tax foofu fësu fa fësu fa mais soo jël le cas du Mexique et les États-Unis d'Amérique il y a une forte migration entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique loolu ñëpp ko ñëpp a ko xam boo ñu créé woon benn barrière benn barrage benn batima boo xamante ne bâtiment électrifié la au temps de Donald Trump pour vous dire que le problème est là c'est pas le Sénégal lu may wax nag. mooy ne ñun Sénégal moo ñu ñor. damay ñëw damay ñëw damay hmm. ñëw damay ñëw damay ñëw. soo parce que sooy indi sooy def un sooy résoudre un un il faut le prendre dans le cadre général. une hmm. méthode hypothético-déductive pour mën a joxe un résultat boo xamante ne c'est un résultat probant nga xam ne képp koo xamante ne dëgg rek moo la ñor dañ ko nangu. li ci am solo mooy ne la jeunesse sénégalaise premier élément bu may wax mooy ne dañoo war a gëm suñu bopp. c'est un premier élément. Mm que le, au Sénégal, nous sommes nés au Sénégal, et ce Sénégal-là, c'est pas les Européens qui vont venir pour, nous, le développer. C'est nous les Sénégalais qui sont nés ici, qui ont, qui sont grandis ici, ñun ñoo ko war a jël en charge gëm ko liggéey ko. Je donne un cas les Bawol Bawol suñu mbokk yi ñoom dañu jóge fee Bawol ñëw fii Dakar duñ indaale les moyens nécessaires pour mën a gëm pour pour mën a euh, tenir le bon bout mais dañuy gëm seen bopp xam ne affaire bi liggéey kese la ñu koy fayet di koy fayet di koy fayet di koy fayet bu am ci ay boutique di koy fayet bu am ci ay entreprise di koy fayet bu nekk des agents immobiliers loolu bëri na fi am pagaille on n'en disconvient pas et as nañ xam aussi ne aussi le l'emploi la l'école sénégalaise forme chaque année dans le marché de l'emploi 300 000 jeunes plus de 300 000 jeunes day ñëw dans le marché de a des métiers yoo xamante ne c'est c'est pas des que a bon une montée d'écoles de formation à n'en plus finir des écoles certifiées et des écoles non certifiées ki seen responsabilité la aussi. état du Sénégal état euh, école yooyu noonu bu ñu koy formé booba président Macky Sall nekkagul président. d' mais lan ngeen jël aussi pour limiter. waaw bi wala foofu lay ñëwee foofu lay ñëwee état mu ngi def liggéey bu am solo par rapport à ce système d' parce que man je dans une institution qui fait des auditions. Mhm. et audit yooyu ñu nga xam ne koy def je ne vais pas venir ici pour me à son excellence monsieur liggéey man xam naa ko xam naa ne il y aura des mesures idoines. Mhm. qui seront prises par rapport à am nag jeunes yi politique de l'emploi lajul mosul laj. waaye nag qu'est-ce qui explique ce phénomène alors. ce phénomène ce qui l'explique mënuma comprendre. xam na mënoon naa même man di nga xam nga mënoon naa comprendre que bu ñu demee egg vivre paisiblement am xaalis kon man sax xëy na ma dem mais le problème mooy ils savent que c'est risqué en fait ils peuvent mourir en mer. mais malgré ça ñu ngi koy def. loolu nag xam nga euh, soo jëlee la sociologie de la famille. Mhm. Euh, da ngay toucher euh, benn fibre bu sensitif. parce que gis nga le pouvoir emploi jàng mën nga jàng mais emploi. Mhm. da ngay sabablu rek mais lu yàlla nam ci yow day am. jeune ne parle pas du fatalisme mais il faut aussi ñu xam ne dem Europe taxut nga réussir il y a combien d'Européens il y a combien d'Européens qui sont il y a de Sénégalais qui sont en Europe qui vivent dans des conditions extra exécrables yoo xamante dans des, conditions extrêmement difficiles j'en sais quelque parce que je suis oculaire des faits damay dem ba ne yéen lan ngeen wut au lieu ngeen toog fii du ngeen dem ñu dem suñ dëkk ba béyi ci réew ma mais béy bi sax problème la parce que li la war a jox du egsi ci yow dañ koy détourner si selo waxoon na ko fii maanaam le problème le la am na ñoo xamante dañuy jëm def ay si dañuy demander ay projet ñu jox leen projet ñu def détournement d'objectif au moment où ñu war ko injecté ci projet bi nga xam ne moom la ñu war ñoom ni ñuy lijjantee fu ñu da fuñ fu ñu duggee ci bato dem DG ANPEJ nee na ma certains jeunes ont été financés ñun jël xaalis bi tukki xam nga loolu du yoon mm-hmm. loolu nag ci participe ci participe à détruire pays mm-hmm. parce que les fonds la qui sont mobilisés pour euh, euh, pour lutter contre le manque d'emploi pour favoriser l'employabilité et l'entrepreneuriat fekkee na ñooñu dañoo jël fonds yooyu au lieu ñu injecter dans un secteur mën a créer ay emploi ñu jël ko injecter ko ci ay bateau loolu ci ay ay gaal mhm. loolu vraiment vraiment man je ne parviens plus à comprendre mais soo demee nag euh, au fond des choses da ngay xam ne question affaire bi question d'éducation la et de mentalité mhm. et c'est pourquoi les pères de famille doivent raisonner leurs leurs enfants leur inculquer les valeurs civiques et moro qu'il faut pour qu'ils restent dans ce pays pour croire pour qu'ils croient à leur pays et savoir que Sénégal ñun ñii ñi fi nekk ñu ñoo ko mën a développer parce que damay joxe benn exemple gis naa jeune boo xamante ne Mamadou Awa mhm. bursam la jël toba def ci tooli xaal trois mois de de de de de bourse mhm. bi nga am vacances mu def ci tooli xaal kooku noonu mu jaay tooli xaalam à huit cent mille mu jël de jëm outil machine mu leen boo xamante ne deuxième mai la. Mhm. jënde ko ay sept cent huit cent mille euh, six cent sept cent mille jël ko euh, joxe ko kooku di koy liggéeyal. Mhm. mais kooku actuellement tey sooy compter nombre de machines yu mu am war na moo ay vingt machines. Ah, mhm. loolu noonu ngëm-ngëm la mais kooku mënu na wax ne noo xaalis bi dama koy noosi jee wala dama koy defi jee leneen. c'est pourquoi ma ne la l'État crée l'État crée les conditions d'employabilité mais nous aussi. ñun ñoo war nekk nit yoo xamante ne li ñuy def dañ koo gëm defuma projet pour def tâtonnement d'objectif defuma projet pour noose ko mais dama def projet pour jàppale sama réew pour vie ah. suñu quotidien pour que vraiment mën a accompagner